baayam nafi mag ñi tege woon maamam Cheikh El Hadj Malick mm. nekkul wàllu wiraasa sant mm-hmm. waaye wiraasa xaqiiqa la ndax bu doon wiraasa sant rek la kon xëy na Cheikh El Hadj Malick waaw waaye Seydina Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiallahu anhu mm. sallallahu alayhi wa ni mu amee ni ko yàlla woowee yonent bi comme ni ma koy waxee barki démb ci jumaa ji ni yonent bi yéege ci ascenseur suñu borom wuy ji borom bi mm-hmm. ci wàllu ubudiya bi muy wàllu as njaam ndax képp ku bëgg a àgg rek na nga jéem a nekk as njaam mhm. loolu la Seydina Cheikh nag bàyyi sax ñi nga xam ne ay sëtam lañ ca Maroc mais mu jël wiraasa bi jox ko maam Cheikh El Hadj Malick ba ba bépp sëtu Seydina Cheikh nangu nga ne Cheikh El Hadj mhm. moo nekk xalifa Cheikh mhm. ba bi mu fiy jógee Cheikh Sukayru ji sax dafa bind lettre ne Serigne Babacar Sy mooy donn Cheikh Alxaaji Malick ginnaaw moom Alxaaji Mansour hmm. Alxaaji Mansour tam def benn testament jëmale ko ci Alxaaji Abdul Aziz ba li ci testament bi sax wax na âge bi Alaaji Abdu dund ataala allahu umraka yaa imaam yaa imaam bi boo ko calculer dindi yaa bu mujj bi ñaari miim yi dafay nekk quatre-vingts yaa bi nekk dix ñetti ñetti lettre yi nekk trois muy quatre-vingt-treize ans hmm. mën Mansour tamit bi muy toog alaaji Abdou noonu la ko defale testament waaw ne ko bushraakumu Mansuur xat walliitumu sirral xilaafati mawrida zamaan mhm. ne ko nag du man maa la fi teg du sant du dara ndax nekk xalifa bi ku sant si mën na ko ku santul si mën na ko nekk ndax benn kilifa daagaan si na nekk xalifa cheikh ci alxaaji Abdou mhm. maam Abdou recevoir ko ne ko nangu naa sa cër waaye xadratul ilaahiya mag ñëpp sëriñ mën Mansuur si lañu tànn mhm. te mhm. Serigne Cheikh Tidiane nekk na xalifa juróomi at mais nekkoon na ko ci xaqiqa ndax Serigne Serigne Abdou suñu baay sama Serigne sama lépp sama xarit nee na am na bis góor gi jige jumaa rek dindi ma sànni ko Serigne Cheikh ne ko ma defal la li la sama li la sama samaam defaloon kon loolu lépp Serigne Abdou nag mhm. al amin xilaafaam moom fii la ko tegoon ndax daf ko nekk ba pare mhm. waaye moom ci làmmiñam moo waxoon ni jàppale leen Serigne Babacar Sy Mansour ndax mooy nekk xalifa bi kon ñu nuyu ko nuyu na góor gu tedd gi sama xarit ba alxaaji Malick si Maodo Dabbaax mm-hmm. sant leen tam ci ñëw bi soxna Maria wax leen ni seen kër ngeen ñëw mm-hmm. seen kër ngeen ñëw mm-hmm. ci biir ak ci biti kon ñu nuyu àdduna bi yëpp ñuy seetaan Sept TV Mhm. nuyu nuyu nuyu ko ñu koy seetaan ci internet beeg ci lépp soxna Maria ñu leen dalal. jërëjëf Kébé mhm. santaat nañ la bu baax a baax di ziarat bu baax yaa ngi koy tudd léegi nee naa leen mooy suma sëriñ moo di euh, sëriñ Maodo bu mhm. a baax si Malick di ngi koy wax léegi ci bi may dugg nee naa bu weer bi teroo rek xel yëpp day dem Tiwaawan bu weer bi teroo xel yëpp day dem ci gàmmu gi gàmmu gi nag day màggal li nga xam ne moo di jundi euh, juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. euh, euh, Seydina euh, Seydi El Hadj def ci lu am solo mhm. Mhm. mooy tax tey jii ku nekk jóg di ko tàntal bu ñu dellu see tuuti ci solos gàmmu gi waaw bu ci dellu see soxna Maria xam nga maa ngi wax barki dem ci jàkka ji ne leen dafa am baat bu ñuy dégg gis naa sama nijaay ju baax ji sax nekk sama lépp di Pa Kebe sama royukaay sama soppe Euh, di ca wax ne ñun de dañuy gàmmu. maa ngi koy dégg. <laughs> ngi wax ci jàkka ji ma ne waaw ñiy weddi ñiy weddi gàmmu. Mm-hmm. ne gàmmu yonent bi bàyyi ko fi mais ñu koy weddi yonent bi bàyyi leen fi. déedéet kon ñoom bidaa lañ. waaw bidaa nag mënut a weddi bidaa. Mm-hmm. kon mag ñi li ñu tëral kenn mënu ko weddi. ak fu mag magee nag. waaye ki xewle nag mooy Cheikh El Hadj Malick Sy. Mm-hmm. doomu maam Ousmane Sy bu maam Demba Bunna. wallaay waaw woy juróom bu jigéen. am na ñaari doom maam Abdou Booli ak maam Fanta Cheikh El Hadji Malick soog a ñëw mm-hmm. ni Sayyidatuna Xadijatu amee ñaari borom kër yonent bi soog a ñëw noonu la maam Faa Wadd amee ñaari borom kër soog a jur Cheikh El Hadji parce que ndono leer la mm-hmm. léegi nag maa ngi wax barki démb soxna Maria ne même gàmmu Cheikh El Hadji Malick da ko fi fekkoon mais ci ban façon ci ban mm-hmm. façon Mm-hmm. daf ko fi fekkoon ñuy tëgg di fecc ceddo yi nekkoon Tiwaawan gis nga fii nga toog tey tey tey wax nañ ma ne ma sa maam Cheikh El Hadj daan na fii la daan xottee di dem waxtu waxtu 18 heures bii ñuy defoo émission bi mm-hmm. dégg naa fii la daan jaar ci kër gi nii dem mm-hmm. kon bi ma al amin di wax ni ma waaw a ah, fi nga juddoo ñoo yóbbu sa baay Cees waaye nag dikkaatal ndax nga gën ma jege kon bi ñu ñëwee fii ma yëg loolu da ngay xam ne Cheikh Hadj Malick kenn la fi la fekkoon nag ñu koy defee mu ne ah bii ñu koy defee de du nii mu indi ko nag xam nga ban façon la ko njëkk indee daf ko ànd ak suñu maam alxaaji rawxaan ngom mhm. bu paal ca paal mais li gën a yéeme ci nitu yàlla seen premier gàmm mooy ah xa alquran Cheikh Hadj Malick daan ko rawxaan bàyyil ma jël baqara ba mariam di tari di dem nga jël Mariam di tarit dem mais secret ba ca nekk maam Rawxaan côté bi mu doon taree foofu la mujj dëkk foofu ay taalibeem nekkee xolal yàlla Cheikh Alxaaji Malick nag booba dégg naa suñu maam ju jigéen ja yaayu Alxaaji moo daan moo daan moo daan rayoon gàtt di ko defaral mu ñëw nag Tiwaawan ne Tiwaawan day su mu fekkoon yàlla tàggu na ma dey gaaya ga ma juddoo laay amee sama lépp waaye yàlla wu dëkkam muy Tiwaawan man Malick ma doy ko fa mu teg ma fi mm-hmm. mu ñëw fi nag indi nag façon gàmm bi façon gàmm bu mu indi nag mooy dundal guddi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag du bidaa maria déedéet kan moo njëkk a màggal yonent bi du yàlla waaw koo xam ne at bi nga ganee àdduna benn jigéen judduwul góor rek gane góor rek la jigéen ñëpp ëmb maria xam yéen ñëpp yaakaar naa ko ci nekk yaa ngi ñaan sa yaa ngi naan yàlla naa am taaw bu góor mhm. gis nga ni doom bu góor ni ngay bëgg a taawloo góor te olof góor baax na jigéen baax na mais góor responsabilité bi ko yàlla jox moo tax mm-hmm. Seydunaa Muhammad bi mu nekkee ci biiru yaayam sa maam nee na wa maata diixun min an niswaani min asafin araf na zaaka min al kuhaani laa tahimi mm-hmm. sa maam Cheikh Hadj nee na deux cent jigéen dee nañ deewu yaakaar gu tas même ñu koy firee dee sax du deewu bakkan mm-hmm. est mën ngaa nangu ci sa niveau intellectuel bi la yàlla jox ne ki war a bëggal ñëpp wër na juddu deux cent nit di dee kon wamaata dee na deewu yaakaar gu tas parce que ñoom ñëpp bi ñu demee ci seen kuhaan yi mooy seen saltige yi ku ci nekk wax nañ la ni du yow yaa koy jur waaye samaam ñëwaat ne wali nisa azina al muxt azina xam la zukurin zalika al am ikraman li muxtali tarimi sa maam alaaj Malick ne yàlla déggal na nag at moomu ku ca ku ca ëmb ëmb góor waa dama lay laaj yàlla bu mayee jigéen ñëpp ñu ëmb góor loolu mm. màggal la wala du màggal bu mag a mag kan moo tax jigéen ñëpp ëmb góor parce que jigéen ñëpp dañu foogoon ni ñooy jur ngën di mbindeef ku ne di xaar ku ne di xaar du yow mm. yàlla ne kon ma bégale leen ku nekk am doom bu góor léegi nag yow nga bëgg a ñëw ba heure bii saa ci ay téere yu weex ngay yem ay ñetti xaddiis ay nit di la former nga naan bidaa bidaa mm-hmm. te yàlla màggal ko mm-hmm. waa màggal passé na ñu dem a dem ba requin yi ci jën gi xat sa waakinul baxri samaam nee na ba ci jën yi ci géej gi lekkante wuñu wallaahi ñu dem ba golo jox jox xaj loxo ne ko ndokkale wa kullu maa li qurayshin dabb xat na taxat mm-hmm. te waxul wa kullu man c'est boo nee ma dafay mel da nga def ma mais soo nee man day def mel ne ma muy man Mhm. suñu woon MANE kon nit ñi rek la mais comme MA la wax luy nitug lu dul nit dab ba samaam na dukkat nga gis nga araab yu neex yooyu wallaahi xat nata wax na xaj wax na golo wax na ko ne ndokkeelente mhm. waaw bu dee nag moom ganeegul àdduna ñëpp ndokkeelente waaw mu gane àdduna ba pare di nit wallaahi koo xam ne sa nampal sax wa nazaati tuyuur Maodo wax na ko ci beneen téere euh, kaza wuxuus njaay àll yi ak njanaaw yi ku nekk yaa ngi naan yàlla jox ñu ñu nàmpal ko waaw yàlla defalu yonent bi picc déedéet nit la ko def ba pare boole ko ci ñun mhm. waaw ñun ñëpp màggal ko te bokkul ci ñoom mu ñun <laughs> bokk ci moom duñ ko màggal duñ xam naa nag fana nag euh, waaye di yem dëgg la moo tax sa maam ñëw indi ko façon màggal hmm. te gis nga kii kii wax ni kenn du ko màggal ma nga toog ca koyam ña ko wër wër ko mu toog ci kaw di wax nga ñëw Tiwaawan Pape Maodo si toog ca kaw di wax nga naan leen bee araam na te kee ca kaw la toog yow ca kaw am ñu ko wër am ñu la wër bii day dagan bee dagan baa bii araam bi araam rek te yow sa bos araam na parce que yow da ngay diingat te ñun diingatuñu mhm, mhm. mais nag képp ku toog ci ci ci place euh, xas la ci xam-xam toogal sa kër maam tontu ko ci niveau xam-xam mhm. moo sa maam indi nag ne kon gàmmu yàlla moo gàmmu ba pare boo ko dee topp ci alquran yàlla ne ne ko nahnu naxussu alayka min amba il maa nu sabbit bihi fuaadak waa kaay ma nettali la histoire yi amoon te yàlla nu ko neex lay waxe parce que booba fekkewoo ko mais mu ñëwaat ci sóotul fii li alam kay fa ñëpp a ko jàng mais ci wàllu balaaxa doon dem ci yenn niveau xam yi lu tax yàlla waxul alam taalam ndax ndax xamuloo mais mu ne alam ndax gisuloo te yonent bi fekkewul bi yàlla di alak abraha mais ahankay am na niveau boo xam ne juddu ak leer mooy tax boobu mi ngi ci ndiggal Abdul Muttalib bi yàlla di écraser Abraha mhm. te booba ab Abdul Muttalib lu mu am kim kim kim denc tax mhm. mu denc ki nga xam ne moo jur baayam muy sëtam te kookoo ko gën loolu tax yonent bi gis-gisu bët ak xel la njëkk a gisee ni yàlla def Abraha mhm. moo tax yàlla utilise alam tara loolu gàmmu la xoolal tey boo ko doon firi di ko neexa alam tara yow kay fa yow faala c'est-à-dire détail yooyu da ngay yëg ni mi ngi gàmm wallaay dëgg su dee conférence mu ne ko alam tara kay fa faala rabbuka bi ashabil fil wallaay dëgg la bu dee da koy joxe leçon noonu kon yooyu yëpp dama lay wax ni la rek Cheikh El Hadji Malick fi mu ko teg bëri dafa baax rek ñu génne xam-xam yi tasaare ko waaye defe naa ne fii kenn doful benn mag ci magu kër yi diine yi di def lu neexul yàlla déedéet ndax lu ñu am ci lu baax ñoom la ñoom mosuñu hmm. mooy yàlla moo tax nag mu mu ne mu ni tëgg yi ñuy tëgg ak ceddo yi ni ñuy naane sàngara parce que fii mooy xam fii nga ñëw moo doon capitalu ceddo Tiwaawan ni Dakar nekk capitalu Sénégal la Tiwaawan nekk woon capitalu ceddo xamoo gis nga sama papa Abdoul Aziz Al Amin këram gu bees gii am na tama tama boo xam ne fa lañ ko suul gis nga borom tama boobu moo doon nodd faj quatre heures du matin di jóge ba laa ilaaha illallaah tama la doon nodde du ko daan tëgg ci wetu Maodo ñuy coow Maodo ne yéen a ko dégg di waaye man dégguma ko bu demee ba fi nodd nag lu ngeen di wax xaal bi dugg ko Maodo di jàngale muy tëgg hmm. mu mujj sànni tama bi ñëw sukk ci kanamam déecoro déecoro fii la daan jaar hmm, ñoo fekk Cheikh El Hadji si Sy Maodo di jàngale mu yor biteelu sàngaram yëpp ba mu yàgg xaal bi jàpp ko mu summi mbubb ma sànni ko Maodo di continuer di jàngale mu dindi nafa ga xaalis ba jox ko Maodo continuer di jàngale muy fa fasu naari góor bi jox ko góor gi ne ko jëf xam naa mu mu mel ne xam na ci yàllaam ne dafa xeeb baatu jërëjëf xam nga merci merci mais lu garaaw la alaaji Malick bàyyi ba mu dem mu ne ko déecooro mu gestu ko mu ne ko merci de baat bu tuuti la waaye ku deful dara doo ko dégg déedéet waaw loolu nag la formé nag teg ko ci alxuraan ak xaddis mooy ki ñu màggal la alaaji Maalik na nee na nag ni ma koy màggale man mooy ala parce que wa mawliduhu bi sharafun wa xiirun fa in jaaxu sujuni fi taazim màggal yonent bi faju aajoo nga ca sa maam nag tëggaat ci beneen téere bu ñuy wax la haaja mm. te fee ma nga wax ca nuuni ya nag mu ñëw ne waaye nag attention ni ma koy màggale alaa dama ni kuy nelaw nelawu dof dof lu niteel alaa kuy nelaw nelaw ignorance yeewul alaa kuy nelaw nelaw pour nelaw ba ñëpp tëdd nga jóg sàcc ca gàmmu ga azimoon màggal leen laylal wilaada Maodo deful bi daa de mhm. màggalul juddu yonent bi mhm. parce que dof yi nee nañu yonent bi màggalul juddoom yonent bi daan màgg altine bu jot daan woor altine bu jot waaw loolu cosaan la sax ba léegi nit ñi dañ koy def mhm. faf sax dama déggul moo Maodo def ni guddi gi dëppoog juddu ga ba léegi wax naa ba tàyyi dañoo déggul wax bi laylal wilaadati guddi gi dëppoog juddu ga gën ñu ko leeralal sa parce que dégguñu la de. xam nga altine la judd. waaw mais est-ce que Mouhamed juddu rek juddu rek juddu bi Mouhamed bi la màggal. waaye déedéet maanaam yàlla dafa màggal yonent bi parce que yàlla dafa màggal at mi. màggal weer yu màggal bis bi. Mhm. léegi ne bis bi nga guddi gi nga xam ne ci la Seydina Mouhamed ganee àdduna indil ñu xéewali guddi googu dëppoog li l'essence am moom la Maodo di màggal mais pas l'essence bi. xaw ma comprendre nga wala. comprendre naa maanaam naissance bi mooy juddu na. juddu na rek dañ ko war a dañ ko war a màggal. dañ ko war a noosal comme ñun nii rek. waaw simplement suñuy anniversaire. waaw kay waaye moom guddi gi nga xam ne ci la xéewal gi wàccee. moom la moom la màggal. moom mooy gàmm gi. waaw mu ngi parce que loolu la yàlla màggal soxna Maria. est-ce que waaw. boo tax nag mu ni xesbataan nag dama bëgg nag ngeen def ko ci honnêteté. isa lam yakun nax wal xaraami ku nekk sa dëkk nas ñëw fi di naan di sàcc di taxawàllu góor ak jigéen xodoolu jéggal naa la Maodo nee na jéggal naa la de kon nag màggal gi ndeysaan sama papa Abdoul Aziz heure bi bu dee ma fàttaliku biig rek bi may bi may jaar maa ngi fàttaliku mag waa Bakel yi bu ñu gàmm bu ñu bisu noppalu ma jóge fii damay dox ba foofa waxtaan na leen da gis maan dal bu nekk nañ fa wàcce kaamil nañ fa wasifa nañ oustaz bi jóg jàngale mhm. yooyu c'est-à-dire yooyu la ñu yare ba nga xam ne kon ki nga xam ne moo sos lii di Cheikh Al Hadji Malick mhm. fowul fowluwul walaay fowul waaw xam-xam ba ëpp na yàlla ji ëpp na sama mhm. pap Maodo si sama soppee dama waxtaan daaw jéeg ci burd bi moom Pape Habib ni ngay ni ngay ni ngay connecté arwaax yi daal daal ma ne ko lépp ci simaalik yaa ñu ko bran moom tey li mu wax xanaa xamoon ni Pape Maodo dafa nëbbu wallaay dëgg la kenn sutu ko day toog nii yonent bi jàkkaarloog moom wallaahi moo tax nee na tabaarakallaahu ni mu koy waxee yaa man bihi taabal ilaahu li aadamin wa bihi l xaliilu niiraani hëtëfët bi al ashwaaqu nahwa muhammadin hmm. pam moo doon fa ajabtuha wal xalbu fiha yamaani hmm. waaw muy màggal yonent bi dafay daf cay dem ba day bind xasida yoo xam ne dafay tiit ba mu yàgg mu nañ ko lakk kon kooku mooy sayduna muhammad kon nag màggal gi dagan na bàkkaar nag la Maodo ni ku koy def jéggal naa hmm. ku fi def sa bàkkaar nag yoonu alaaj Malik ci ndax Maodo bindul jaam yi mayu leen paas mayu leen wér te dem na ko am sa paas yàlla waa yàlla mi xool jaamam may ko mu am bët am wér am lépp am xaalisam mhm. mu may ko mu dem Tiwaawan accidenté wul deful dara mhm. kooku moom yàlla mi ko bind moom la concerné mhm. mais concerné wu Cheikh Alhaji Malick kon daal wàllu gàmmu daal noonu la ko tërale woon pour ñu defe ko noonu incha allah parce que euh, dañu bu ñu waxee ci gàmmu gi nag dinañ ñëw ci buddi waaye laataa loolu da ngaa laal léegi xaside yi mhm. te dafa am boo xam ne dañuy faral ñun di ko dégg mhm. ci euh, ñun ñi nga xam ne suñu àll soriwul mhm. ma bëggoon nga mosol ñu ci tuuti muy mimiya damay dégg si seen waxtaan tout le temps ngeen di indiwaat mimiya mm, boobu mooy siratu téere boobu euh, boo demee Égypte dañ ko def ci ci bibliothèque bi léegi gis nga mimiya ci vingt quatre jours la ko bind li gën a garaaw te bi mu koy bind duggul xalwa tëjuwul te bind na yeneen téere ci biir te mi ngi jàngale. xam nga lan moo indi miimiya mm-hmm. dafa am téere bu mu doon jàngale téere boobu di wax yonent bi euh, ñaata xar xar xar la amoon. Mm-hmm. am benn xar bu ñuy wax xëy sa. Mm-hmm. téere bi def ko ñaari tur. bi ko samaam di jàngale nag daan ah, téere bi dafa juum xam nga def koo koy ponkal. mu ni ko xëy saa xaw sa kat du deux mouton benn mouton la hmm. mu ni ko ak ah, góor gi moom deux la ko def mu ni ko roqaya mooy daba njaga mooy maxtaar sàmba mooy bàcc <laughs> la kon xëy sa mooy xaw sa mooy téemaa dugg ci géew bi loo tax nag foofu xasalul dem jëli yonent bi comme burdu bi dinañ ca ñëw aminta zakkor yi kooku dafa parce que gars yi ay ponkal lañ moo tax sa maam dafa jékki-jékki ne alhamdulillahi hmm. alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami mu middinaa bi wujudil badri zil xadami dafa tëb ci xilaas rek dugg ci yonent bi moo tax premier chapitre boobu chapitre dafa neex parce que daf ni alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami yàlla mooy borom amal moo fi jiitu parce que l' de Dieu su may jàngal xale yi man leen Dieu existe na Dieu pas yàlla il est nekk ah. c'est-à-dire lu mooy nangam mais il est il est c'est amul leneen mais kooku mooy mooy zul ijaat wal xidam yàlla mooy amal mais il est dafi nekk mm. moolal xidam bi mm-hmm. moom nag mu mit dinaa moom yàlla bi wujudil bëddiri sama ma ko wax ci xilaas de yàlla moo ñu tëbb ñun ci amu al bëdduru bi mooy naa sayduna badduru bi mooy weer tey jii buñ la ni woon yaa ngi leer na caméra bi ñu ni kon de leer na te fekk yonent bi ci leeram lañ binde caméra bi même comme mosoo gis caméra mm. leeraay bi dalay jaaxal dalay jaaxal mais weer yonent bee sangam. dëgg la mais Maodo sa maam bëri na lu muy utiliser baatu bëdduru parce que bëdduru mooy 30 jours bi. hilaal mooy buy doog a feeñ. Mm. xamar mooy mooy mooy 15 jours bi mais moom boo gisee lu ëpp lay jël bëdduru bi. Mm-hmm. mu julli ci yonent bi teg ci saxaaba yi nag ci biir classe bi. mu ni wa innahu is arada allahu nashatana abana min nuurihi nuuran nabil alamin hmm. nee na yàlla mi ngi ñu tëbb ci leeru sayduna muhammad te yàllaa ngi binde muhammad ci leeram am ñu ko doon diingat ne sëñ babacar est ce que leeru yàlla wàññeekul sëñ babacar ne indi leen ma ñaari sondeel xalifatul akbar al xalifatul awwal li abihi wa cheikhihi hmm. cheikh ahmad tijani kooku mooy premier xalifa di toog na tekk gis nga moom dafa neexoon nii rek lay def nii xam nga ñu ko wax docteur baatin mm-hmm. mais benn tubaab da koo xool ba mu yàgg mu ne est-ce que xam ngeen seen sëriñ bi ni muy toogee day mayee santé xool nii. est nii. Mm. wala nii. Mm-hmm. mu ni jox leen ma ñaari sondeel ñu jox ko ñaar soo mu taal leen benn bi ñu taal benn bi ci almet mu ni jëlal beneen bi jafal ko ci bi ci des ñu jël beneen bi jafal ko ci bi ci des mu taal mu ne est-ce que jafal bi wàññi ci leer mu ngoog. mais ban leer la yàlla bind yonent bi hmm. mooy as xul wallahu allahu samad samad boobu ci la yàlla bind yonent bi xam nga as samad mooy kii ñëpp di ñaan te du ñaan kenn hmm. moo tax yonent sëriñ balaa mat sëriñ ku la ñaan nga jox ko ku la ñaan nga jox ko te bul ñaan say njaboot wallaahi sëriñ piir day dimbali penc mi te du sàkku ndimbal ci penc mi hmm. waaw maa la wax loolu loolu mooy beneen poñ bi ñu jëm sax jeex na kon kon nag euh, wasal leen yaa ilaa ci la nekk ci euh, boobu yàlla Cheikh Hadji dafa jékki-jékki daanu xam nga wasal yéen yaay laa lu tax mu mu wax ko yonent bi dafa jóge ndeysaan màkka ne ko am néegu baay ñu bañ la am nga néegu ndey te Taif ñooy famille yaayam mu ni xaaral ma dem fa ndax metti na mu mm. dem fa ñu boole ko ay xaj ak ay dof ñu dóor ko ba deret ja di wàcc nee na te bu deret ji laalee suuf àdduna tukki nga gis sang bi di aj deret ji Maodo ne laa xaami na sufaha ca miimi ya daña naag ñu desee ay ignorance maala afuuhu bihi sama maama am teggin moo tax ku wax lépp di dof moo tax firikat buñ naan da ngaa da ngay jaar ca digg ba hmm. léegi digg ba bëtt la léegi digg ba bëtt la maa la ko wax nga toog ne pat kenn dootu la dégg hmm. sa maam nee na maala afuuhu bihi loolu gémmiñ dul wax waa alaaj ma lu mu bañ a wax xale bu ko wax foo jëm mais xam nañ lan bëgg a wax <laughs> mooy kay kuñ fi dóoroon sa papa ba toj boppam boo génnee doo ko nettali déedéet ah paa bi liñ ko def daal métti na waaw lu mu ko def non paa bi ko def métti na foofu rek nga yem ko nettali nga bëgg koo nettali ci <laughs> yonent bi waaw mi ngi noonu bu ko defee nag hmm. ndeysaan foofa nag bi mu seetaanee yonent bi euh, mu ànd ak Zayd ibn Haarisa euh, kooku ñu ngi ko doon wax Zayd fils de Muhammad hmm. yàlla ne Muhammad juru ko hmm. kon nañ dindi fiis bi parce que bu ko dindiwul woon kon boo adopté ku sant ku sant nga sant Jóob nga àddata ko sant Kebe kon daf lay doon te lool la mm. yàlla doon dindi mm-hmm. mais fere moo doon dafa mel ne écran bi mu yor caméra bi mu yor di film yonent bi bi Seydina Mouhamed daanoo xom quatre heures de temps alaaji Malick sama papa euh, euh, nee na sa maam ba muy bind xilaas kon doo xam looy liir ndax jooyi fala alaaji Malick daanoo rek xamatul lu muy def mu ne wasalliyan yaa ilahi wajziyan abadan am naa mouhamadan al muxtaara fil xidami yàlla daal ci ni ma koy tënkee wuutuñu fayal ñu sayduna muhammad loolu daal alal nabi wa alayhim ci la nekk tabarakallahu at mim la naa nuura naa nga gis ñoom abdul aziz ak ñoom xaaj dudu kend mhm. di ko way mhm. euh, ñooñu nga xam ne ay mag ñu baax lañ dañu tarbiyu seeni kilifa ba yàlla yëkkati leen euh, tabarakallahu mhm. kon loolu daal mooy miimiya moom la ñuy wax xilaas xilaas mooy firi lu sell miimiya mooy way bu nekk euh, defe naa vers la bu nekk m la jeexe m m moo tax ñu tudde ko Emmiya <laughs> boobu mm, Mimiya Mimiya tabaarakallah ayca ñu dugg ci li nga xam ne nag euh, oustaz Safik may nga xam ne ñoo ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi fii kër Serigne Abibou Kébé mm. mi nga xam ne rek euh, moom la ñuy àndal loolu tey ci waxtaan wi beneen ponk bi moom laay wax léegi mu di saa gàmm gi dañuy def fukki fan mm-hmm. yoo xam ne dañu koy jël ne dañuy def burdu mm-hmm. nit ñi di daw si di ñëw ci burdu bi mm-hmm. ñii di toog seen kër même bu ñuy déglu wala ñuy seetaan ñu am la ñu jàng solos burdu bi solos burdu si soxna Maria mm. booy xoolal yaa yaa wax sànq fukki fan. Cheikh El kenn la xam nga tax fukki fan. Mm-hmm. mooy burdu fukki buntu la. Mm-hmm. dix bunt la. Mm-hmm. te dañoo wax ne yonent bi ci fukki fan ak ñaar am na ñu ne ci premier jour bi. ci premier dixième ba ba douzième mais onzième jour kenn waxul na ci la yonent bi gane àdduna kenn bind ko. samaam tudd ko bisu. noppalu noppalu. noppalu bi nag. bu di gàmm gi mu rendi nag bi mooy xilaas bi mhm. bendee la ko gànni mhm. léegi nag burdu nag chaque buntu mu jël benn xam nga lu mu la bëgg jàngal mooy dix jours yooyu yëpp ku nekk am na téere bu wax ne ci la gane àdduna moom fexe na ba nga dundal ko ndax weddiwul kenn waaye ponkal la nag mu jël douzième bi moom te lu mu jël téere gis nga Cheikh El Hadj wax naa barki dem ci jumaay sëñ Babacar cité na trois cent soixante cinq téere ci kifaayatul raaxi bi mhm. te trois téere desatul ci réew mi miimiye bii mu ci tudd ci ay téere boo demoon bibliothèque yi gën a mag ci àdduna yoratuñu téere yooyu nga xam ne kii dee na jàng na ba dee wër na ba dee mm-hmm. léegi nag fukki fan yooyu burdu nag daba tur bi tur bi waaw bi mi ngi firi manto mm-hmm. mais sëriñ Mansour comme xam-xam bi dafa bëri mu dañoo waroon a tudde burdu bur u tudde borom baanat soat burdu ndax baaral soir téere la waa ji dafa saaga insulté sa sallallahu ala prophète paix mm-hmm. salut sur lui da ko insulté mm-hmm. ñu ni nañ ko rey mm-hmm. waa ji kaala wu ba kenn xam xàmmeewu ko rek di wër ba ba taxaw ci kanam yonent bi ne ko yaa rasulallah ñu ni ko waaw kii wax kan la mu ne kila la saaga woon bu la pardonné da nga demandé pardon da ko pardonné mm. mu ni ah mu làqati kaala gi ñu ni eh di kaab kaab la Omar jug ak jaas ji yontu bi ne non maa ne woon wii te kilifa du ni wii ne non. di delluwaat wallaay dëgg la. rek mu koy dàgg man biitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi maqbulu waxat ateetu rasulallahi mu'taziran wal uzru inda rasulillahi maqbulu ay waay max lan defal ndànk hadaaka jubal na la allazi ka nga xam ne aataaka jox na la naafilat alquran ne ndoon leen tey alquran fii ha nekk na ca mawaizun ay enseignement te man jànguma moo tax ma saaga la wa taf diilu ay noblesse te man aw ma noblesse hmm. ay waay laa taxusan nii bul ma jàppe bi ak wàlli wusaati waxu waxkat yi rambaajkat yi hmm. wala mu usnit bàkkaaruma wa in kasuran doon te bëri na fiye ci man al aqaawilu mbamb mi ñëpp man la ñuy mbamb ay waay taxaw naa foo xam ne bu fa ñay taxawoon tey nga gis muy lox inna rasula yow muhammad la sayfun jaasi nga de yustadaa u boo xam ne nii boo génnee jaasi bi mooy gën a leer caméra da leer a dëkk bi hmm. ñu ngi la hindaale loolu waxin la mooy comme ni naan marque marque sàngam hmm. mu ni ko jaas ji mi ngi jóge Inde min suyufillaahi sax yow ci jaas si yàlla mas loolu ñu bocc la rek yonent bi daanu xaal sumbi mbub ma jox ko jox ko téeméeri giléem te mbub moom moo tax sëñ Mansoor ne kon boobu ma waroon tudd burdu hmm. mais burdu bi mu war a tudd bur u mooy Mouhamadul Busiri dafa feebaroon hmm. bi mu feebaree mu dem ba ci raw rawdu rasulullahi daan ne ko fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun rek daal di gëlëm tension bi mel na luy bëgg a hmm. dafa mel ni jàngi naa jàngi naa def naa ba def sama thèse def naa sama doctorat def naa lépp pour jàngale waaye sama frontière xam-xam daan mooy ku nite nga rasulullah bu xeeb ci bàmmeelam bu ko weddi ne ko wa annahu nite gaa tax xayru xalqillaahi mu gën ku yàlla bind nite ga moo tax basharun bi booy bu koy firi bu ko firee nit firi ko nite comme da caa jëlee santé moo tax sëñ Mansour ne dañoo woon tudde téere bii santé muy burdu mais nag burdu muy firi mbantu mhm. ki ko way tamit deux mille vingt et bi muy firi bunt bi ñu way démb xaddamtahu li madiixin moom laa doon firi mooy moom da daan way ay buur mhm. di liggéeyal ay buur yaayam na ko Muhammad bejjaaw nga nag te sa turandoo lañ la tuddee Muhammad ah. doo ko way rek mu ne kayfa tara ruqiyatul an mais da koo tëgg tëgg boo xam ne ñu ne ko bu ko defati yonent bi kenn du ko songe nii mu daal di jël burdu na amin tazakuri jiranin bisi salamin dam an jaramin muqalatin bidami hmm. mu commencé nag di wax nag naan dafa mel ne maa ngi jooy walla maa ngi wax ak salam maa ngi wax ak beneen dëkk léegi nag téere boobu nag la alaaji Maalik ne xool mu yëg ni yàlla barkeel na ko nangu na ko hmm. mu jël ko nag indi ko pour ñu koy defee euh, burdu bi hmm. bu nekk rek ñu jàng benn buntu loolu mooy solos burdu bi ndax tagg yim ci tagg yonent bi te yëg nañ ni yàlla nangul na ko ko mm. ci yàlla incha allah solos gàmm gi li ñu ci dénkaane yaa ngi koy wax léegi li ci li nga xam ne moom la ci dénkaane li ngay njëkk a xalaat mooy wàccee a nga xam ne moom lañ fi li ngay njëkk a xalaat mooy ni euh, ñuy def ni ñu naan dañuy cofeel gi am ci diggante mbokk yi mhm. ci diggante jullit yi dem dem lante beeg ñëw bi ak foo mhm. mën a bokk nag mhm. ci réew mi di nga fexe ba ñëw Tiwaawoon ñu daal di waxtaanee ki nga ne moo di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ci li nga xam moo di gàmmu gi fii ci Tiwaawoon euh, beneen bunt bi nga xam ne moom lañ jëm Oustaz Habib Kébé moo di jamono jamono kër goo fëgg tey mag ñi kër goo ci fëgg bind nañ bàyyi fi mooy li ma wax sànq waxtaan nañ bàyyi fi seede yaa ngi fi ndax ñoom dañu daan bind di fi bàyyi tey jamono ju toll foo xam ne tey jii. Hmm. suñu mag ñi day damaa defe ne eh, eh, dañ leen a bëgg a woyofal. dëgg la ci réew mi. waaw loolu de moom xale yi xam nañ ne sama discours yëpp loolu la. Mm-hmm. maa ngi tafsiri alquran tafsir bi yëpp kër al amin ca Thiès. Mm-hmm. ci koor mm-hmm. sama discours bi discours tafsir yi sax. loolu la. mooy dañoo bëgg oyofal ñu yàlla diisal. te loolu lépp xam nga lu ko indi. siyaasiya politique boo xam ne teguwul ci bi ñu santaane politique bu tegewul ci politique biñ santaane politique ba fi nekkoon mooy politique yor sa réew pour dimbali ko mais politique gu tey mooy politique gu falu lekk lekkal ñama àndal mhm. boddi ku ma neex mhm. fal ku ma neex mhm. sa bopp rek sa bopp rek loolu nag moo tax moo nekk nag ci bopp xale yi mm-hmm. ñoo xam ne tamit bu ñuy wut façon ba ñuy wutee teguwul tamit ci wut biñ ko soxlaa parce que wut la boo xam ne ni wutu intérêt la mm-hmm. xale yi nag tey faaleetuñu benn kilifa tey li may wax benn exemple bi ma lay jox est-ce que war nañu oyofal kilifa mm. muy Tuubaa Serigne Mountakha mi fi nekk. Mhm. barki démb la inauguré université. wallaay dëgg te dama koy wax télé Touba bi. Mhm. ñoom ñëpp waxtaan nañ ci. parce que man li ma ñor mooy ñu xam kuy mag ñi. wallaay dëgg la. université ku ko inauguré tabax ko ay milliards xale bu ndaw mais li ko fi maamam bàyyi def na ko. wallaay dëgg la. li ko maamam sant def na ko. Mhm. boo demee ci jumaa ji xolal alxalifatul am li tariqatu tijaniya mais cëram la xolal ñaata milliard mu réaliser ko fexe ba def ko ci jumaa ji mm-hmm. xolal sëriñ abdou suñu suñu sëriñ bàyyi na fi xolal sëriñ abdou bàyyi na fi daara moderne boo jógee nii sama kër ci côté bi mm-hmm. bàyyi na fi institut man fa laa nekk mm-hmm. bàyyi na fi euh, clôture na jumaay sëñ Babacar defaraat na raw du baayam kër yi yàqu woon ci ginnaaw ay baraak mam asu si mbër ki jur sama papa. nga xam ne Serigne Cheikh mii moo ni woon maa jël bàjjan asu si yóbbu ko dakaar moo jëloon sama maam yóbbu ko dakaar mu ni jëlee naa ci moom lu ma jëlewul ci téere mm. mais xale yi bëgg a fekk mag ñi raw téere ñu di leen saaga. wallaay dëgg la. Serigne Cheikh wax na ni xoolal biig ci guddi maa ngi koy wax Serigne Pape Malick caatu sëñ Babacar. maa ngi nuyu ay ay doomam Modou Sarr. Mouhamed mm. Sarr faf faf mi nga xam ne moo ñu boole. nekkoon sama nijaay Pape Malick. Hmm. Pape Malick nee na sëñ Babacar si ñëw na bis di ñëw ci jumaa ji bi mu ñëwee di ñëw ci jumaa ji fàtte ne sëñ Pape Malick ñëwul te xale la. Hmm. armée français yi bu ñoo fi nekkoon tubaab bi dem jëli sëñ Pape Malick góor gi ne du wàcc ci oto bi mukk te pap pap borom kër gi ñëwul te mooy Pape Malick. mu ñëw mu ne waa nii la mën a demee de. Hmm. mais tey nga wàññeeku di di insulté Pape Malick. dëgg yàlla dëgg yàlla sam Pape Maodo si tey. di gis sallallahu alayhi wa musta dépassé benn magam mhm. waaw musta dépassé benn magam mhm. musta gaaruwaale kenn mhm. président ñëw na fi bu yàggul est-ce que xam nga ñun Kër Maodo ñun kaay nag ma def la benn message bu garaaw pour jeunesse bi bàyyi ko xel xam nga ñun ñu yare mën naa ni Kër Maodo mais gisuma benn kër bu benn kilifa xalifa bu mës a wax ni attaqué leen état déedéet amul amul mais gis nga ma wax la benn affaire xale yi nañ xam leen ne gis nga état sam papa nee na ma ku xeex ak moom déglul bu baax nga jàpp li may wax. ku xeex ak moom moo lay njëkk a dóor mooy mujjee dóor mooy àtte. <laughs> te muy dëgg moo lay njëkk a dóor. mujjee dóor mujjee dóor te mooy àtte seetal seetal ñi ko ñi at état attaqué état yëpp xoolal fu ñu mujj. wallaay dëgg la. gis nga politique du yàkkamti. politique du foqarte gis nga tey jii ki fi yàlla teg nii ci pénc bi muy président Macky Sall da ngay nangu ne tuutil mulka mantasha xale yi nañu bàyyi xel ne yàlla nee na may jox nguur ku neex. bi mm. machi at yi ci sama sama coobare. mais tanzi'u maa koy nanguwaat mi mantasha ci ku ma neex. Mm-hmm. bi xikmati yi ci sama sagesse xamoo ne ko falu ci coobare yàlla la. Mm. mais ko follee ci sagesse yàlla la. Mm-hmm. waaye Maria léegi dañoo bëgg neexagul yàlla ñu bëgg ñu bëgg fee jëlee ki fi toog. dañuy sonn rek. mënul ne. Hmm, coono yi mooy bëri rek. xam nga ñun wax naa ko benn nit gis nga fii ma toog lu ma mënul am ci sama ñaq. Hmm. yaakaaruma ko ci kenn. Hmm. ndax rus naa ko. wax ba pare génnaat defaat ëllëg loo may gisee ak ñi naan lam waxoon defu ko. defu ko état jaraluma ko. mais duma song état. kon xale yi bu ñu song état nañu def beneen politique. am na koo xam ne tam bu mu song état na xaar ba bis ba mais xam nga lan moo indi difficulté réew mi mm-hmm. mooy mayu dindi nguur ci ku ma neex neexagul yàlla nga bëgg mu dañ mm-hmm. xëccoo bi daal xëccoo bi la message bi ñu ciy lancé ñaata marche nga fi gis ñu naan amuñu autorisation de marche mm-hmm. léegi sa Sénégal nee nañ euh, nu ñu koy waxee démocratie mais démocratie ya ñun ñoo leen gën a jàng démocratie xamuloo Mm-hmm. stratégie stratégie bu Cheikh Al Hadj Malick. al amin bind na ko ci alfayaat ci laa toll di ko jàngale chaque vendredi. Mm-hmm. mais stratégie Cheikh Al Hadj Malick ni mu def ak tubaab bi xam nga lu mu waxoon daf ni daf ni ay mbokkam tubaab nag tubaab nag da ngeen ko bàyyi xel gis nga nag nag ñu ne ko si. mu ne nag boo ko soree weq ba day dal waaye boo ko jegee du la weq tubaab boo ko jegee rek mën ko boo ko soree rek mu am information yooyu yu la yàqal. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax mu fexe ba dëkk ñoom lu ñu tabax mu tabax seen wet stratégie la. Mm-hmm. mais mais mais ñun daara ji ñun dañu def école française comprendre xam lan. ba pare mm. daara ji gën a ñëwaat nag dolliwaat la moo tax boo seexalee ñaari xam-xam yi. da nga mën a conseiller jeunesse bi. Mhm. bala maa dee ñu ni nañ leen bàyyi parce que bu ñu leen encadré woon lii lépp du am. yàlla nee na d' accord mu. Mhm. Seydouna Muhammad. jóge na Màkka dem Medina. kooku mooy Seydul Kawnayni mooy Seydul Sëxalayni mooy Seydul Farixayni mooy Seydul Majdayni saaxibul xiblatayni. waaw sang baa ngoog. Mhm. na tenkam tenkam ba Màkka defaree moo ci ne 450 kilomètres. ah ñu jël ay barrières baare ko da ko doolaal Kaaba gi. doo dugg sax màkk daal bu fi dugg mm-hmm. mu def demi tour immédiatement Seydina Omar ñëw ba ci kanamam am na sax ñuy fi naan Omar da daan werante yéen bi <laughs> mm-hmm. a sa musiba rek mm-hmm. danga naan Omar da daan weranteeg yonent bi ah, Omar dañ koy indi lu bëri moom ñoom gis nga Omar ni mu garaaye woon ci yetam di dóor àllaaxira bala moo dem àjjana dina duma ñu bëri waaw parce ku bëgg a xas Sëriñ Muntaxa ne Omar sax danaan waxante ak bi dëgg. Mm. ku bëgg a xas Pape Sëñ Bay Mansour Omar dafa ñemee werante ak yonent bi. Omar di ponkal Omar di nitu yàlla. Mm. Omar da daan wax xalaatam. Mm-hmm. ni ngay posé question nii noonu la Omar daan posé question de yonent bi ne ko sama xalaat la mais kan mais ku dul yàlla da ngay juum. da ngay juum te muy dëgg. Omar ne ko waaw yow léegi lu tax nga ñëw wàññeeku xanaa doo rasulullahi mu ne ko maay rasulullahi. xanaa nekkoo ci dëgg mu ne ko nekk naa ci dëgg kay xanaa ñee ñu ngeen baal ma baat bi xanaa ñee fennuñu ngeen baal ma baat bi mu ne ko han ah kay mu ne ko yaa waxoon dañuy dugg makka mais xoolal tontu bi nga ko tontu ne ko maa la waxoon ren. maanaam jotagul mu ne ko déedéet mu ne ko nañ dem. jotagul yàlla ree. na jibril xoolal sa waay sa sa copain. <laughs> ndeysaan mi ngi def demi tour marchand bi autorisé wu ko muy dem. wala dëgg yàlla jotagul. jotagul. waaye ba mu ko autorisé ne ko la tadxulunna al masjid al haram incha allahu ci sama autorisation waa gars yi bu yàlla demee ba naan incha allah la ilaha illa allah yàlla bu demee ba naan incha allah yow ngay dogg ci ne dina am incha allahu léegi nag autorisé naa ko mais aminiina encadré leen ko aminiina muhalliqiina ruusahum wa muqassiriin ngeen defar karaw yeeg yëpp ba mu rafet xam nga buñ la autorisé da ngay sañse ba jekk da ngay préparé wu préparé wu ba jekk dem def nii marché wàññeeku waat dem mais li tax mu ne mu xalliqi na ruusa wa mu xassirin mooy bu ma la autorisé wul karaw ga peñe ba nga koy peñe ay lacrymogène lay doon ak ay bopp yu toj <laughs> te baa yënga ne les balles perdues sam papa nee na ma doom bu leen seetaane kuy seetaane kenn du la seetaan xale yi nañ toog wallaay dëgg la 92 laa gën di seetaan télé toog di seetaan tele lu dul diine xanaa seen télé yii. mais toog daan seetaan télé 92 ci Coupe d'Afrique ba. mbaalu. lu la ci daloon sang sa papa fu ma woowee ci télé ba laa koy wuyoo. ah. mun ma Habib Ba yaa ngi jàng. mun ma lu sa maam moo lu nekk nekk sa maam boo jàngul doo wax de. lay dëgg la. mun ma kuy seetaane kenn du la seetaan kuy def lu yëngu nga seetaane kañ ngay xewle bañ seetaan la. xale yi hmm. nañ dem toogi. te jàngi te jàngi. Hmm, hmm. mais daara daa daara yi ni ñu koy waxee. Mhm. waaw daara. parce teg naan sëriñ wax. ñi war a wax lu ñoom ñooy wax léegi nag est ce que du ñooñu itam noppi googu ñu noppi tamit day am beneen problème boo xam ne rek. Maria est yaakaar nga ne noppi nañ mais lan lañ bëgg Maria. Mm-hmm. mais Maria man sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yónni na ma fu nekk. waa léegi nga bëgg a dem ni tey nga ñëw ci gàmmu Tiwaawan ñun ñu bokk ci commission culturelle ñu ni kër gi nañu seet secret bi la indi fii xam nga lu tax mhm. nañu seet ñu war a wax ñu wax mhm. waa man sama kàddu Pape Sëñ Bay Mansour kañ la dala wax Pape Sëñ Bay Mansour diggante deux mille vingt et léegi presque il a quatre-vingt-dix ans et quelque fu muy génnee te di wax mais Pape Serigne mën Mansour ba muy Pape bay mën Mansour ngeen xàmmee ba léegi da ngeen koy gis zawiya ba muy toog waaw te mosu leen ko gis mu toog ci chaise hmm. sam Pape Abdoul Aziz Al Amin quatre-vingt-dix ans la génn àdduna te ba ci dernier tabaski bi dafa génn burdu yi da daan toog te du wéeru di frenkulaayu hmm. ñaata discours la sëñ Abdou def hmm. waaw lu tax ñu ni waxatuñu bi ci desit ki takk ay dàllam dem sànni ji xeer ñu jàpp ko wala ñu dóor ko bal mu mu dee bi muy deppaar kër sëñ Muntaxa la départ wala kër papa sëñ Bay wala kër papa. <laughs> papaam la ana papaam. te muy dëgg. mais nañ waxante dëgg am na loo xam ne kenn dégluwu ci sëriñ si ku ku ko bëgg a defi da nga koy defi. Mhm. sëriñ si ñi ngi wax bind nañu mais Maria jàppal ne conference yaa ngi fi waxuñu fi lu kenn waxul. wallaay dëgg man mii mënu maa wax lu. Euh, lu sa pap Maodo si waxul. wallaahi mënu maa wax lu sëriñ Abdoul Aziz waxul. Mhm. mënu maa wax. lu xalifa bi waxul mënu wax lu sam pap bay abdou pap Mansour ak keneen mënu ma wax lu sam papa sax man mm-hmm. ndax moo ma jàngal yaroo waaw sama papa nekk fii Tiwaawan Cees soxla ay jàngalekat Serigne Cheikh ne na mbër kebe dem mm-hmm. waaw ñu wax a wax a wax ba bàyyi ñëw cër bi xam nga lan moo xew deegu bëri gii yëpp xam nga lan la les balles perdues jàppaatal mooy bi nga doon wax de les balles perdues seetaankat lay dal mm-hmm. fi ñu koy tëjee oustaz foofu nga tàmbalee sànq. Mhm. muy ku am solo koo xam ne ñemewuñoo ñëw ci contexte bi. Mhm. ak fi nga xam ne euh, foofu la réew mi toll. Mhm. te tudduñu ko. nga may ñu ci rek. ñaar ba ñetti baat mu di suñu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh. Euh, daf may daaneel moom. waaw daf may daaneel xam nga euh, biig rek jooyloo na ma ci daarul Habib bi. bi ma koy way ci burdu bi ñu doon def. moom yàlla dafa def nag. ma juddoo koñ jàkka mhm. ci kër papay Pam Maxtaar Kebe mhm. ndax papaam ak ki jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baay ci côté boobu mu nekk sama nijaay sama yaay nag mam Abdou di nijaayam yar ko mhm. waaw am na bis muy tere wàllu xeesal sax sama yaay ñëw mu ne ko asi asi waxuma la asi waxuma la man li may woote bokkoo ci asi waxuma la ma gimmee ko nag ma gimmee ko ndeysaan bu ne irxal li taybata laa tarumma siwaaha fa asaaka an taxza bi ruyati taaha daarul hanaa fiiha alxinaa wa kaza almunaa daarul xabiibi xulubunaa tahwaaha bu ko daan way mais muy def yàlla mais baax gi mbaax gee ma jaaxaloon gis nga biig bi ñu jógee Thiès yaa ngi ci oto bi xale yëpp mam Abdoulaye leen doon waxtaanale. ndeysaan ma ne leen ay alaaji Abdou bu daan ñëw dernier burdu. Hmm. ba nga taxaw dégg homme de tenue yeeg seen appareil yi le calife le calife. Hmm. le calife mi ngi jagsaaw mi mi ngi jóg na mam Abdou man dama jàppoon yonent bi la yàlla tëggaat rek. ma Abdou Maria moo baax. wallaay moo baax. man moo ma ñaanaloon quatre-vingt-quinze ma nekk xale bu ndaw. Hmm. ñëw ne ko maam damaa commencé jàngale sama papa daf ma jox daara ji. mun ma daara ji daara ji ma ne ko simaalik daara mu jël loxo bi mi ngi sol tissu yu oyof yooyu bu yem fii mu teg sama loxo ci deru dënnam ñaanal na ma trente minutes ci arab te booba sax li muy wax lu bëri xaw ma ko ci arab ma Abdou moo baax mm-hmm. Serigne kër Sy jóge na fi mën Mansour jóge fi Alaaji Abdou Aziz nekk xalif général des Tidianes mam Abdou jël ku Serigne Babacar Sy jur gën laa bëgg mam Abdou woona sam papa man ne ko ñaar rek mbër laay dégg ci yow nee na ca jamono mu metti ma mooy ma dégg ñu ni bàyyi nga sa nijaay Tidiane si nijaay maam Tidiane si mbër sëriñ Cheikh dina ko cité mhm. mook sama yaay papa bokk ndeeg bàyyi mam mbër jur leen maxtaar penda si jur ko mhm. beneen bi ma ma dégg ñu ni bàyyi nga sa allio mais Mariama Abdou xoolal mbaax gi mu wax mu ni sam papa billahi lazi laa ilaha illa huwa bu doon mbaax baax benn la ma jox la ko te fu muy jaayee ma jëndali ko Maodo mam Abdou mooy nit koo xam ne Pape Makhtar Kébé muy suñu mag di suñu nijaay nekkoon ci moom bu la jàppalee Pape mam abdu ci sew sewaan yi ndax dégg naa Pape Alpha si xolal gii mbaa tëdd ci néegu papaam papaam jóge jàkka ja yëg ni doomam moo tëdd ci néegam mhm. mu toog ci saal bi ne bu kenn yee ba mu yeewu ndax Cheikh Alhaaji Malick samam Abdou ñëw na seet si taawam suñu nijaay Pape Maodo si baax mu ñëw ne day fanaan ñu jox ko mbàjj mu ne mbàjj mi Maodo Maodo da ci sàngoo ñu ne ko waaw mu ne yàlla tere Cheikh El Hadji Malick la ndeysaan Pape Maodo yéeg ci kaw indi beneen mbàjj ne ko papa bi mosuma ko sàngoo ndeysaan abdu Abdou Pape Sëñ Bay Abdou seeti na ko fekk doomu Pape Sëñ Bay Abdou biir Tambougo Moustapha suñu jarbaat la ci wàllu yaayam hmm. Mame Abdou ne ko bàllal bi Moustapha di liir la de bàllal bi Moustapha di tëdd doo tëdd ndax Cheikh El Hadji Malick hmm. Pape bu Pape Maodo si Abdou benn Pa Abdou bu sa mbàjjan Aminta seen mm. yaay ñoom mm-hmm. Seynabou Sy la tudd Seynabou Sy ak asu si bii jur sam papa ñoo bokk ndey ak baay maam mbër jur leen ndeysaan Pape Abdou nee mam Njoogu Ñang moo jur yaayu Pape Abdou jur yaayu Pape Maxtaar Kebe 44 la ko sëñ Babacar defoon imaamu zawiya ba mm. li bu ma la ko liiraloon ci français ci ni bokke woon ak mbusoog mbàkke ni ñu jaxasoowee ci suñu biir kenn mënu koo nettali. noonu la ñu wax nee nañ mbusoog mbàkke mooy Québec ak mooy Québec yëpp benn la. xoolal ju daal di ñëw jël nag mam Ndiogu nee na. suñ mësaana jël Pape Abdou nii muy liir di ko teg ci lalam mu ni déedéet te mam mam Ndiogu jur mar ami bàjjël amin te mu jur Pape Abdou. waaye déedéet Cheikh El mm-hmm. kon mag ñooñu mam Abdou ko baax la gis nga Pape Thierno Seydou. moo mm-hmm. tax pon ci Pape Maodo. maa ngi nuyu ay doomam surtout soxna Umu Kulsoom sama jigéen sama xarit. ak soxna Ndey Faatu Diop soxnaam. Pape Thierno 95 la gaañu. Mhm. fekk am na doomu Alaaji Ibu Saaxo bu bu war a tudd doomam bu war a tudd. Mhm. Mhm. ba mam Abdoulaye day dem ca tudd ba. fa Pape Thierno génn àdduna Maria. ndeysaan. ñu ni waaw Alaaji Abdou bu doomam génnee àdduna kay du ñëw ca tudd. déglu loolu de. ñu ni ko kon léegi ñu indi liir bi nga tudd ko mu ni déedéet. maa waxoon damay ñëw damay dem tudd ko lu war ci Cerno ma soog koo def mhm. mam Abdou wax na alxaaji Rawaan mbay dama mbay dama lay seeti Pap Sidi Ahmed sama pappa sama xarit moom it sama nijaay moom ma ko wax munu Pap Habib ñun daal ñu dem ba ca étage ba ndeke góor ga bi nga dëkk ca cinquième étage alaaji Rawaan mbay wàcc ne ko papa ascenseur amu fi de te cinquième étage bu mu ni déedéet jël yëtam na ataqawwau bi quwwatillah sukkandiku naa ci kàttanu yàlla Pape Seydi nee na ñu nekk ay xale ñu ngi ñàq bay sonn góor gi di sukkandiku ba cinquième étage ku bëggoon ñëpp mm-hmm. ku daan jël démb maa ngi wax ci oto bi ne xamoo bi muy dund Abdou Diouf gouverné wul woon Sénégal Alaaji Abdou gouverné woon réew mi mm-hmm. parce que lu ñëw dimension ba mu amoon day woote wallaay dëgg la te dañ ko daan déglu lu mu daan wax Abdou jox Abdou Diouf Pa Maxtaar Kebe mii lu mat ay ay cent millions. jox na ko Alaaji Abdou. Mhm. Alaaji Abdou woo Pa ne ko boo demee waxal ma Abdou ne ko xaalis bii mu ma jox <clears throat> Abdou xam na ay nit yu ko gën a yelloo ci man Abdoul Aziz <clears throat> na leen ko jox. Mhm. xam nga lu ca gën a yéeme. mu ne ko Maxtaar neel Abdou juuf nag sa papa ne na yëg na nit du julli ju jumaa taxaw ma fu mu ko teg. Mhm. Pa Maxtaar ñëw ñu recevoir ko. mu ne ko góor gi tënkal ma tënk ko rek mooy valise baa ngi noonu daal nee na sa papa nee na xam nga koo ko war a jox xam nga maxtaar tamit ak fulla gi bi ci des nee na ma jox ko loxo bi may jóg ne ko sa papa nee na yëg nañu doo julli ju jumaa te xaw ma foo ko teg ab <laughs> maxtaar nee na ab du naan nii bopp bi comme ni ko ànd woon <laughs> lu mat cinq minutes ne ko ne ko dégg naa ko indi nañ ko ay centaine de million centaine de million fii mm-hmm. Pape Badou sam Pape Badou si nee nañu centaine de millions ñu ne tey jag saaw toj million yii mu tëdd fi mu tëdd rek ne ana badu mu ne ko maa ngi nii mu ne ko suulal ma million yi. ci jamono ji <laughs> papa du nee ma ànd ak Abdou dem ba ca àll ba di ko gas di ko suul xam naa ne bu may wàññee ko Abdou Kane di wël <laughs> ma ne ko ko Abdou Habib Kébé ci yow. wallaay waaw bu doon marit xam naa naa. dama ko naan nag góor gi yaa àgg ci yàlla nag dëgg yàlla ay centaine de millions doo mais am na lu tax wallaay Pape na ma lakk ko ndax xam na fa xaalis ba jóge mm-hmm. ñu indi fa ay camion ginaar ñu ne tey daara ji neex mu tëdd ne ginaar yi na yëpp génn kër gi bu ci kenn lekk dara Abdou ne ma sëñ Habib ma ne xaaral comme man séddale naa reere reeraguma xaaral ma nëbb ci benn ginaar nee na sama xel laa ko wax tooj bu Abdou bu ci jël benn ginaar ndax réeragoo. laa ilaaha illallaah jërëjëf jërëjëf kii daal su ma lay wax kooku man nag dama ci am chance su. Mhm. Euh, dama ko dama ko fekkee fréquenté ko di ko seeti. man su ma ko daan xool daf ma daan yéem taxawaayam. Mhm. rafetaayam. Mhm. bejjaaw bi ni muy weexe ak ni mu bëggee jàng. est-ce que xam nga ni mu bëggee xam-xam. Abdou na xale yi jàngi lay nañ sëñ Babacar kañ la génn àdduna 25 mars 57 sa mm. alaaji Mansour 29 mars 57 mm-hmm. Pape Maxtaan ne Pape bal xaw mi bal kooku ñaari doom la am xam nga mm-hmm. loolu mm-hmm. xalifa bi ak bàjjan farsi bàjjan farsi moom lañ joxoon sëriñ Mansour borom daara ji moo doon soxna sëriñ Mansour moo jur ñoom sëriñ Cheikh ak sëriñ Habib ñii daa jëra leeral waaw waaw alaaji Mansour ñaari doom rek la am bàjjan si mooy taawam xalifa bi toppoon ci jeex na ñu jël soxna fat si mën sóor soxna fat si mën sóor indil ko sëñ mën sóor soxna fat si mën sóor sëriñ mën sóor mu am ci ñoom sëriñ cheikh ñoom xabib xoolal fat si mën sóor boroom këram sëriñ mën soor dañu dañu bu ñu bu ñu bu ñu dellu siwaatee ci xalifa yi foofu la ñuy tëjee sax ndax ñu ngi may wax ne ma waxtu wi jot na bu ñu ñëwee ci euh, sëriñ Babacar dañuy dem ci sëriñ Mansour mhm. bal xaw mi mhm. euh, ma Abdou ñëw Serigne Mansour ñëw. Mhm. macha allah. Mhm. noonu noonu noonu la de. waaw xam waaw. ba après. Eh, waaw ba tey Serigne Cheikh xam nga xilaafa gi. ma Abdou Aziz eh, Junior. Serigne Cheikh waaw Serigne Cheikh. waaw Serigne Cheikh xam nga xilaafa gi noonu la dama dama bi may nuyoo maa ngi naan Cheikh El Hadji Malick. Mhm. dafa woo sëñ Babacar ne ko mag ñëpp nee nañ yaa leen doy ci xilaafa gi. sëñ Babacar su ne ko à condition kenn bañ ma xam ma xam nga ñun li ñu rey ñun mooy bëgg a bës. bëgg bës bëgg daraja wax lu rëy ŋàlli ŋàlli coow fii dóor dil wallaay star star lu fii hmm. doo waxatil mag ñi xam nga problème bi ci nekk nag mooy waxtaankat yu bëri seen bopp la ñuy waxal seen bopp la ñuy waxal nag léegi waaw dóor dil dañ ko bàyyi nag hmm. wax sa maam Abdou Moussa wax ni cent mille francs bu ñu lay jox wala sec bu ñu lay jox bu mu tax nga bañ a wax dëgg Abdou de nañu wax Abdou Diouf dëgg tëpp kenn génn génnaat nan Abdou góor gi laa rusoon waaye man li mu wax ànduma ci. est que jërëjëf Kébé. waaw. jërëjëf moo ko wax ñëpp dégg. Mm-hmm. waaw te kaset fi mooy li ma nañ bàyyi fi wax nañ mooy loolu. léegi nag sëñ Babacar ne ko bu ma kenn xam bu ma siiw xam nga sëñ Babacar xam nga fulet. Mm-hmm. boo tayee indee. waaw. luy saxaar soo si di génn. sëñ Babacar nee na. alaaji Malick fuletam mooy feeñ. mais alaaj ma tàkkagul xamoo loolu yow. tàkkagul ba léegi tàkkagul alaaxira nga koy xam. ndeysaan wallaahi alazim wallaahi tàkkagul. Mhm. ndax dafa dem màkka ne bu ma kenn xam. Mhm. sëñ Babacar si alaaji Malick lan moo tax mam Sidi Ahmed mooy taaw alaaj Malick xam nga loolu. mam Sidi Ahmed. xam nga loolu. Mhm. na nit ñi xam ne alaaji Malick so mam fat si mooy taawam bu jigéen. dafa am ñaari fat si. fat si bu ñëw fat si buudi fat si tay ba mam fat si tay ba mook alaaj Abdou bokk ndey ak baay moom la joxoon alaaj Abdou Faati Ñang mu am ci suñu pap Bachiru Ñang pap Bachiru Ñang moo jur soxna Lalla soxna sëriñ Bay Abdou mhm. moo tax ma ne la doomam yi samay jarbaat lañ ci wàllu boobu di samay sang di samay sëriñ ci seen baay mhm. mam Sidi Ahmed fat si bee moom lañ joxoon góor gi Malick euh, Sarr defe naa mu am sëñ Muniru Sarr bi jur Mansour Sarr sëñ Muniru Sarr moom lañ jox sam bàjjen aminte si bu sëñ baabakat mu ngi dund moom la sam papa tudde taawam bu jigéen sama mag bu jigéen mooy taaw mhm. mu ngi ko tuddee mais Mam Sidi Ahmed moomu moo desoon te Salonique. Mhm. Salonique waaw. Mhm. moom nag jotul nekk xalifa ci kaw. Mhm. ci biir ci parce que Maodo da koo bind lettre na ko yaay sama xalifa mu ne ko xam nga ne du ma ko fekkee Babacar mooy sa xalifa. bu sëñ Babacar di ñëw mu ne gis ngeen ndaama di ñëw mooy nekk xalifa Maodo. léeg-léeg mu romb sëñ Babacar ne ko dóor ko ci bopp xalifa bi sëñ Babacar ne ko oh, Modou bàyyil tooñ waaye. ndeysaan sëñ Babacar nag nekk premier xalifa El Hadj Malick. de 22 à alaaj soo topp ci moom kon lundi mardi mercredi jeudi vendredi quatre jours cinq jours lañ rawantee mu wàcc waaw sëñ Babacar lundi la fi jógee vingt cinq vingt six vingt sept vingt huit vingt neuf vendredi vingt neuf mars cinq jours alaaj Mansour dem Tiwaawan di toj xamoo woon loolu déedéet alaaj abdu nekk xalifa bi noonu la demee Hmm. mu nekk xalifa bi de 57 à 97 mais 92 sama turandoo sama maam Habib Malick Sy <clears throat> génn àdduna te bu fi alaaj Abdou jógoon mooy nekk xalifa bi hmm. sëñ Moustapha Sy Jamil taawu sëñ Babacar Sy moom it jóge fi 92 boobu hmm. ndax ba maam Habib demee bu sëñ bu maam Abdou demoon sëñ Moustapha la mais mag ñi dafa am lu ñuy tëral dafa am benn xalifa baatin booy nekk soog a dem après nag de 97 nag à 2012 ci la borom daara ji nekk xalifa bi mu nekk xalifa bi ba 2012 Serigne Cheikh ñëw ne jël naa lépp def ko ci loxo Serigne Abdou. mu mm. nekk xalifa bi ba 2017. Mm-hmm. kon 6 mois ci wàllu xilaafa la sëñ Abdoul Al Amin nekk xalifa 6 mois. Mm-hmm. mais moom responsabilité xilaafa yëpp moo ko yoroon. moom moo ko yoroon moo tax lim xam ci xalifa jàppale woon ko ay baayam ak ay magam. Mm-hmm. moo tax yàlla jox ko cër boobu. 6 mois yooyu mais nag moo waxoon ni su ma fi suñu fi jógee sëñ Babacar Sy Mansour la. na ngeen ko jàppale. macha allah léegi nag Pape Sëñ Bay tey mooy xalif général des Tidianes. ñu ngi mu yàgg fi lool te ànd ak suñu. borom defal ko tawfeex xalif tam du du dara la dul. Euh, dañ koo defoon ca pale ba Senghor ba mu wootee Thierno Seydou ak ñu ñu bëree bëri ñu toog. Mm-hmm. mu ne xalifa général des Tidianes. ñu ne ko Thierno Seydou Diawara mu ni mu ni kooku ah, déedéet xanaa wéeroo abudu la abudu moom ah, tukkula la abudu mi abudu mi loolu taxoon nag ndeysaan mm-hmm. tabaarakallahu loolu daal moom mooy mooy Pape Serigne Mbaye yàlla na ko fi yàlla bàyyi amiin ak sama nijaay Maodo si ñu sant leen gërëm leen jërëjëf kontaan nañu jërëjëf ñu ngi ñaan suñu borom bàyyi la fi yow itam amiin amiin nga yàgg fi lool te ànd ak wér xam-xam gi gën a leer te ni nga koy jàngale itam ñu ngi la koy sant tey ñaan ci sa barkeeg moom yàlla na fan wi gën a ñoddeeku ñu yàgg fi ni ñu koy waxee rek euh, di wéttalante noonu ngeen koy waxee ñu ñu yàgg fi di wéetalante rek incha allah kebe jërëjëf ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak téléspectateur waaw tàggoo bu gàtt la mooy yàlla na gàmm gi mottali koog jàmm amin yàlla na mottali koog ci nawet lañu nekk taw yërmande la mhm. tey suba ni mu fi def def naa ñun ñi tàntoon ñëpp tàntaat nañ mhm. waaye ngelaw ak nga ay ngelaw du benn yonent bi daan muslu ci ngelaw mhm. ngelaw benn ngelaw bu ñëw rek yàlla nañ ci yàlla musal ni mu def tey mais yàlla day wone boppam waaw ñuy ñaan rek yàlla fekkeloo ñu ko ba mu jàll ci jàmm ñu fekkewaat ko ay at yéen tamit waa 7TV mhm. ñu ñaanal leen suñu borom ci ñëw bii ngeen ñëw fii seen kër mhm. yàlla na leen yàlla fay yàgg sang yu baax yi nga àndal yépp ñu lay sant di la ñaanal ci mbaax géeg yiwte gi ñu wax ci yéen ñëpp ba tax ngeen ñëw fii ci Mouhamed Sarr mi nga xam ne moo ma woo wax ma ko te ñu tamit euh, bàyyi nañ xel tele bi def naa def naa ci benn contribution sax ci jagsaaw bi passé bi ma ma séenee may dem mhm. am na oustaz bu fa nekk daal mhm. euh, woowoon na ma ba ma def ci benn mhm. waxtaan waaye tey jii nag lii moom rëy na ndax xam naa ne sax waxtu ba passé na ca ajak-jak wallaay waaye mbaax rek ak respect waxtaan wi yaatu te neex ngeen teg ko fii soxna Maria jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kooku nag moo di oustaz Serigne Habibou Kebe noonu laa koy waxee. Eh, mi nga xam ne rek eh, mu eh, Serigne Mbër Kebe mu ki nga xam ne rek mu soxna Fatou si Mbër noonu la ñu ko waxee këram la ñu ñëw këram la ñu ñun fii la ñu tàmbalee suñu gàmm. Mm-hmm. kon nag mu ngi noonu ñu ngi am yaakaar tey ñaan suñu waxtaan wi la ak ñëpp ko ñaanee yal na yàlla nangu ñaan yëpp ci barke maamam yal na ko yàlla nangu ci barke mag ñu baax ñi. Mm-hmm. te li nga xam ne itam génnee na ko fii ci waxtaan ñun itam ñu góorgóorlu te déggee ko xel mm-hmm. tey góorgóorlu tey déggee xel ndax booy déggee xel amaana di nga mën a def eh, di nga mën a discerner mais bu dee da ngay dégloo xol rek day xaw a doy waar mhm. kon ñu ngi koy sant ko gërëm di sant toute l'équipe ñi eh, nga xam ne ñoom laa àndaloon di remercier bu baax a baax di leen wax ne ñu ngi doog a tàmbali ci gàmmu gi incha allah ni ñu koy defee saa su ne dañuy àndandoog yéen ci ay waxtaan àndandoog yéen ci waa rédaction bi ak ay production yu bëree bëri gërëm leen et on aousubillahi min alsheytani irajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa sallama tasliman kathiran mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi la 7TV la télé qui nous ressemble et qui nous ressemble télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare góor ak jigéen mag ak ndaw ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna